Asmouda bismillah sunu waajina faal bi wéetal na loo moo ñun ñoo doon ànd di liggéeyal Serigne Touba sunu boroom moom na ko ñu ngi koy ñaanal baby. What's your mind? Bye, fella, jambala. Sunu waje. What's your ma doon sikkar mu ngi sikkar di aw moom mu ngi koy njaaj fa àjjana nañ àggale mbégte mi mënul ñàkk waaye dama bëgg am ma ne bàyyi fa ay sama gars yi bamba bismillah puusal

sopp Sana ila تقول أبدا خير المرام منازعا كان منازعا وأعداء المليك ñëpp màggal la ñëpp màggal Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni loxo ca kaw ما توجعنا سعد الله يد لا إله إلا الله ما توجعنا سعد الله هي بلا إله إلا الله الإسلام الكفار وبنصيحة كل السماء يقود بالظاهر والباطن ما أتاه لله في كل زمن قمته اليوم عذابت والاستقامة والصفوة وعبت لبان كون مصطفى رئيسا لكل من قد فضل مقدمه فوق كل رقبة نصاره كل من خبى محمد رساله لم ياتي فيما مدى وابدا ياتي ثبت أن ربنا لم يهدي مثله فمثله لم يهدي له سيادة الأمراء يوم لست ولد شفاعة والنبي والرسول والقليل هو الحبيب والإمام والدليل برأه البديع من خير الجمال وسأله القدوس عن خير الكمال كم سوري توا Serigne Touba waaw gamu nabi Mustafa Muhammadi xeral wara xeral wara mu ko taara inda sayyidi gamu nabi Mustafa ngi jégalu damay am lu may seede ci jëmm ji rek maanaam ni mu demee nii waxoon naa ko ko wër na Cheikhul Khadim ku baax a ngi ku yaroo ngi nii barke borom Sikori keroog ba ñu judee euh, répétition ci mondial moom moo supporté ci scooter yóbbu ma ba caaba yi barke Cheikhul Khadim borom baax a ngi nii وأبلنا المكارم الأخلاق ما آتاب بن بلا شقاقي واجعل صب الشعب عبد الكريم برم مكارم الأخلاق دفلني واجعل سخيرنا يخر الكبير واجعل كبيرنا يعين سخير واجعل قلوبنا على التودد بلا تنازع ولا تاسد ولا تعصب ولا تدابر ولا تباود ولا تنافر حتى نصير مسلمين خاسخين ومؤمنين مؤنسين سالقين واغفر لنا وآفنا بالعافية تكون في الدار لقير عافية وخمي وخد وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وعولنا يا ربنا قصنا الكتام إن الممات وعدني يوم الخيام بجاي خير من صفى الأمراض وما عبى المرعوب والأخراد محمد كصب سيدنا محمد محمد محمد تبيب الأمة المبني الأمراض والأسنان وسلم عليه ثم سلم وعلي ما سياب الكرماء ما أفلح المسؤول بالدواي وفي المريض بالاستشفاء وللنازم أيضا زاده الله شفاء وفيدا يا من يروم تفاكل داي فلا تفارق مطلب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح ولسان تنصفان وفلاح بإذن ربنا وجاء المصطفى صلى عليه ربنا كمصطفى سيدنا عثمان سيدنا عثمان نور على نوره سيدنا عثمان nam bëggee woon maam Cerno moom neexul la yaa ko ne Cerno jërëjëf am na ngërëm ci yàlla ak yeneen ba am na ngërëmal Cerno ak Cheikh Bamba waaye Cheikh Abdou Karim siisul Cheikh Abdou Karim añaanul du boddi du gëdd far du warante ki xuloo kii doyloo Sëriñ Falliloo bu seexi doon mbër ma def ko sambar ngir moom moo woon mbir ma wax ko réew mi ëmb dugg sama si baari Ibrahima fàtte sama ca bëyit ndaan aw balaak mo du aw balaak aw balaak ku ma jur Seydina Ousmane ku ma soppal bàyyi Cheikh Amadou Kara Mbacké ne ne sa loxo bàyyi Ousmane kenn laa bilaay noo lay ni màgg naan Ousmane ci barke Cerno Noreyni loolu tere ñu bàyyi yeey Noreyni loolu digal ñu gan ci kenn du day yaa Cheikh Ousmane Mbacké Noreyni kii la ñu wóolu Seydina Ousmane ko la ko la kiiru kiiru waaw waaw am na ko mën na ko Noreyni Cheikh Ousmane ay Noreyni màgg bëgg a jiitu. maa ngi jégalu man boobu léegi maa ngi laaj addi yëpp bàyyi murid nga ñëw tegal moo fii waaye kenn faalewu ma xanaa yéen nit ñi man taxuma leen jóg. jàppale ma ngir jëm seen tubaab ngeen tëral ma sama waa ji man kii rek laa am aw ma ko ëpp. kuy indi la nga teg foofu. dafa am lu war ci yow. Cissé Gueye kaay ana Cissé Gueye kontaan naa yéen ñaar may naa leen ku ne kër waaw boole naa leen ak boo déglu leen ànd ñoom ñaar ku jox ku nekk waxoon naa la ko nan la jox kër jox xaasimu kër waaw Mori fi dagg ma ne murit du fi dagg ma ne murit du fi dagg ni nga fa jëm rek ni ko ma may leen man pare xam nga bi dafa dee ba nu dégloo rek ma wax ak ñoom dama ni fépp foo xam ne ni nga fay dem sëñ bi du ngeen nu may déglu tuuti ngir sëñ Fall dama ni sama sang jóg a ma wax ak yow bon comme que ñee bëgg nu maa déglu dama ni fépp fu ñuy dem war fa liggéeyal Serigne Touba Cissé Gaye day jóg indi ay bâcham indi sonorisation bi indi lumière yi indi chaise yi ànd ak mbooloo bu dee màggalu Touba bu dee Kazu Rajab bu dee gàmmu bu fekkee dafa am kenn koo xam ci yoonu murit danga am loo xewle ma yebal ka fa day dem mm-hmm. wala képp koo xam ne képp koo xam ni soxla nga ko mm-hmm. dafa naa ne danaa ñëw ci ndigalu baay Mouride. ndax moom la ma sëriñ bi booleel. sama doom laa ko may mooy soxnaam. may naa ko kër tegal ka ci. xaasimu may naa la kër ak yow na nga dem ci paquetage dal nañ jox yéen ñaar ku nekk kër yéen fu ma dëkk ngeen di dëkk maa ngi yéen ba yomal xiyaam ma teg leen ci loxo ci kër Karim mu jox leen sëñ Paul barke sëñ Tuubaa Baye Fall yi ma àndal yëpp ku ne may naa la kër barke Cheikh Rafal waaw 42 kër génne naa ko maye ko barke Cheikh Rafal billahi lazi laa ilaaha illaa huwa li may wax yàlla tey gis nga civilisation dafa baax ndax tey ku ñëwoon sa bis ñu fay wax mbir lii yaa koy wax de Baye Mouride tey ku ñëwoon ci bisam ñu fay wax mbir day am yéen a ñëpp ne tekk waaw déglu leen lii Baye Mouride di wax. léegi ba léegi amoon lu leer. ci mbiru yar ak teggin yàlla yabal Cheikh Ahmed Bamba xaadim rasulillahi mu dox ci lu bari waaye gannaaw boobee ak tey doomi Serigne Touba yi dem nan ba jax ndeke yàlla borom cër bi ndeke Serigne Baye Mouride Mbaye la tudd muy Cheikh Abdoul Karim Mbacké borom wahab lana makaarimul axlaaxi maha tahaabu bi bilaa sixaar kon dañu war a am yar ak teggin yar ak teggin Serigne Cheikh Sidi Mokhtar. yal na yàlla dolli ay ngërëmam nee na ku am yar di nga yore dara ku am ay teggin di nga teggi xanaa loolu dañ koy bëgg a fàtte kon nan am yar ak teggin kiy wax ma ni sa baay barke Cheikh Ahmadou bàmba yow mi taxaw fii yow yow yow doo ko ndaw ay sëtu Serigne Touba ñoo fi nekk waaye nag doo ko ndaw de ba nga dalee liggéeyal Serigne Touba ak tey loolu yàgg na du tey. Seydina Ousmane ba Cheikh Abdoul Karim Mbacké moom sëñ Fallu te Seydina Ousmane ba gone ca mag kon booy joxe ay kaddu muy doon ay kaddu yoo xam ne daa war a jariñ jaam ñi waxuma wàllu kër yi nga joxe loolu loolu yow loolu da nga koo jagoo yow yow mbaax danga koo jagoo mbaax bërki dëmb nga ma may moto moto moto moto la ma may barke laa ilaha illallah musuma dawal moto ci àdduna waaye maa ngi koy dawal nu ma neexee quatre vitesse barke maam Serap Fall Abdou Diagne bi léegi li si laa ilaha illallah moom moom ko may te avant moto bi may na ma kër may ma jabar ma sëy moom amul moom doom mu tuddee ko soxna maam Awa Faye mais yow dese yow dese loo ñu dara kon bay wax ak ñun dañoo war a déglu. danoo war a ànd ak dal danoo war a am yar ay teggin jële fii loo xam ne boo liggéeyee bu nu demee dañ koy mën a yóbbaale fu nu jëm bu nu demee danañ ci mën a dund ay at du jeex dafa mel ni Serigne Abdou Karim Mbacké mooy joxe ay kaddu kon nañ ne ñi ni teg ñi taxaw nan toog kuy wax te mënoo koo noppiloo bu ko déglu yow boo ko tontuwul rek moom bu yàggee dana noppi bu ko tontu kii wax bu ko tontu boo tontuwul rek mu noppi mhm. kon saa baay bismillah li ma wax li mu wax. yàlla xam na ni dëgg la. yàlla xam na ni dëgg la. xaasimu. xaasimu. bu demee ci paquetage. bu demee ci paquetage. dana ko jox kër. dana ko jox kër. Cissé Gueye. Cissé Gueye. boo demee ci paquetage. bu demee ci paquetage. dana la jox kër. dina la jox kër. li ngeen di defal sëñ Touba. li ngeen di defal Serigne Touba. tant yi. tant yi. lamp yi. lamp yi. xiin yi sikar si sikar si. seen alal seen doole seen doole. leen di dañu leen di xas. di leen wax lu ñaaw di leen wax lu ñaaw. ngeen te ticc. ngeen te ticc. topp ma topp ko. yéen yéen. waruma fatu. warul fatu. ngeen ci biti ngeen ci biti. gor nga. barke Cheikh Rafal. barke Cheikh Rafal. billahi lazi laa ilaha illallah. billahi lazi laa ilaha illallah. bu ngeen demee ci paquetage. bu ngeen demee ci paquetage. dañ leen jox kër di ngeen am kër. bu ngeen ci dundee ba faatu. bu ñu ci dundee ba faatu. seen doom doon ko. seen doom doon ko. kenn moomu ko. kenn moomu ko. maa leen ko jox addiye Serigne Touba. moo leen ko jox addiye Serigne Touba. yow addiye nga xam. barke Cheikh Rafal. keroog bañ invité Xaasim nee naa ko man paquetage laa mos a ñëw dalu bàyyi murit fekk fa xar bu ñu musi wi bàyyi fa béjjënee yaa ko fi def ku mën na def. kon kon. ma ma maa ngi leen di sant. mu ngi leen di sant. ñaar ñooñu. ñaar ñooñu. ndax kii moo def bâche yi. ndax kii moo def bâche yi. kii woote bis bi. kii moo woote bis bi. te ñoom ñaar ñëpp. te ñoom ñaar ñëpp. ci man nañ ne. ci moom lañ nekk mba ci man mi ci yow laa ne. xaasimu. baayam. baayam. mu ngi nii toog. mu ngi nii toog. yaayam a ngi nii. yaayam a ngi nii toog. xëccoowun koog man xëccoowun koog moom. dañ ko bàyyi ak man dañ ko bàyyi ak yow mu dëkk ak man mu dëkk ak yow ma may ko soxna nga may ko soxna mu tawloo doom ji góor mu tawloo doom ji góor tuddee ma ko tuddee la ko te bu doon dégg nit ñi te bu doon dégg nit ñi bana ma bu yàgg bana la bu yàgg wala ba torox sëñ Touba la ma jàppee waaye sëriñ Touba la la jàppee bëgg gi ma bëgg sëñ Touba bëgg gi nga bëgg sëriñ Touba mu bëgg sëriñ Touba mu bëgg sëriñ Touba moo tax mënu maa baax moo tax mënu laa baax ànd ak xale yi ànd ak xale yi nekk ci man nekk ci yow di liggéeyal sëriñ Touba di liggéeyal sëriñ Touba li xaasi mu am li xaasi mu am ku ma def na moom. ku def ni moom. ma defal la li ma ko defal. mu defal la lam ko defal. Baye Fall yi mu àndal. Baye Fall yi mu àndal. 42 la. 42. Serigne Serigne Cheikh xam na ni. Cheikh Fall xam na ni. ku ne may naa la kër. ku ne may na la kër. am na lu fi des. te am na lu fi des. te taalibe yee ko moom. 42 si ta jixaat. barke Serigne Fallou. barke Serigne Fallou. dëgg la. dëgg la. ñoom ñoom ñii. du ànd ak ñoom. du ànd ak ñoom. di leen taxaw ci milieu yi. taxaw ci milieu yi. di wax yoo xam ne garaat lay wut. di wax yoo xam ne garaat lay ut. kon bu génnee ñu xeeb ma. kon bu ñu xeeb ko. mbaa ñu yeb ma mbaa ñu yeb ko. te duñ la yeb. waruñu maa yeb wallaahi. fekkul na ci luñ ma yebee. fekkul na ci luñ la yebee. Serigne Touba lañ sekk. Serigne tubaa lañ sekk. joxe seen ngor. ñu joxe seen ngor. nga jox leen li ma am nga jox leen li nga am. bu ma sësee nag boo sësee jox leen sëñ Abdou Karim jox leen sëñ Abdou Karim mu bumax leen sëñ Fall mu bumax leen sëñ Fall mu jox leen sëñ Touba mu jox leen sa rasul la waa kontaan damaa kontaan li ma wax waay Baye Mouride li mu wax déglu leen li ma wax dëgg la de li mu wax dëgg la de xale yu baax la xale yu baax lañ sëñ Mbacke sëñ Modou Mbacke xale yi xale yi mënu ma leen fay mënu leen fay barkeb sëñ Touba moom ñëpp ko bàyyi xale yi rekk ko bëgg ñëpp koy wax lu bon xale yi rekk koy wax lu baax nee na moom du naan du tux yàmba du dem làmb du dem cinéma du carte du damier bëgg sëñ Touba te Medina amelul kenn bor fu ko neex aw kenn du ko dogale kenn joxalu la njël dara bëgg sëñ Tuubaa rek. rek moom laa def moom nga def. ñu bañ ma ñu bañ ko. cëp cëp ku la bañ cëp. te dafa ni. te dafa ni. bëgg gi ma bëgg sëñ Touba. bëgg gi bëgg sëñ Touba. mënatul génn ci man. mënatul génn ci moom. mu nga fa jaxasoog sama deret. mu nga fa jaxasoog deretam. jaxasoog sama yàpp yaram. jaxasoog yàpp yaramam. sëñ Touba rek la am. sëñ Touba rek la am. bu ma demoon àjjana. nee na moom bu demoon àjjana. seet sëñ Touba. seet sëñ Touba. gisu ko fa. gisu ko fa. ñun ñu ne ko mu nga safara. safara laa jëm. sa. barke sëñ Fall. sëñ Fall. barke alxuraan. barke alxuraan. billahi lazi. billahi xalifa sëñ Touba bii. xalifa sëñ Touba bii. fi xalifa sëñ Touba bii fi ne. xalifa sëñ Touba bii fi ne. di sëñ Muntaxa. di al bu ma woowoon. bu ko woowoon. pour rendi ma. pour rendi ko. man lijjantiwuma ay safara du ma rendee dinaa dem àjjana wala safara. nee na lijjantiwul àjjana ak safara bu ko. rendi ma rek pour plaisir am. na ko rend rek pour plaisir am. du ma naree daw. nee na bu naree daw. bu ëllëgee. bu ëllëgee. yàlla ma gis Cheikh Rafal. yàlla bu mu gis Cheikh Rafal. ak Serigne Touba. ak Serigne Touba. man lijjantiwuma ay bien matériels yi. lijjantiwul ay bien matériels. dëgg la moroom yi ma nekkal fii yëpp. moroomam yi nekkal fii yëpp. sa maaseeg ñoom. te maaseeg ñoom. bu ma leen woon doon woon li mu am. bu leen doon woon li mu am. kon mu xam ni duma seen morom. kon mu xam ni te doo seen morom. te taalibe sëñ Touba. te taalibe sëñ tuuba du wane li mu am. du wane li mu am. li mu am da koy taxañ. li mu am da koy taxañ. daf ko addiyee sëñ Touba daf ko addiyee sëñ tuuba wàcc ci ci suuf. doonub taalibe doonub taalibe. maaseeg ñëpp. maaseeg ñëpp. bañ a tooñ kenn. bañ a tooñ kenn. man koñ bii. koñ bii. ku ma a tooñ ñëwal. ku fi mos tooñ na ñëw.

te ba may dee te ba ngay dee sëñ Tuubaa rek laay àndal sëñ Tuubaa rek ngay àndal xalul أركن يا أبواب صلاتي تهز جوائز التوني كلما حيني سلام جل فقلت حسبي ربي واقتفيت به ولست رأي يا خير الحلم والدين ولست أرجو ولا أعشى سوى ملكي لأنه جل يهنيني وينجيني ولست أرجو ولا أعشى سوى ملكي لأنه جل يهنيني وينجيني أني أفوض أهوالي لمن خجزوا أنها لأنفسهم خجز المساكين أو كيف يبرزني حب الأتام على jiwaari man duuruhum rawdu shayaatini in kuntu daa xasanin aw kuntu daa watarin dahawtu zal xayni xabla raa'i wassini wa huwa al mu'inu alladi laa shay'a شاء يا تكوين إن شاء تاجل أمر كان ذا أحجل أو شاء تجله يبتى إلى الحين يا من يلوم فلا تكسر ود غزل إذا لست من فقدتي دنيا بمعزون إن كان عيبي يذود في أتامهم فذاك خيب نفيس ليس يوزيني يسر لي ميسر العسير ما تروا لي بلا مسيري يسر لي ويسر العسيري ما تروني بلا مسيري ولا اللعين لسوايا مدبرا بما على زهر يدوم دبرا ما توجه المكاره اللي حق حبى بذكره وغنيا عنه رديت وهو عني راضي بلا مكاره ولا أمراض رد لغير جهات الشيطان بل الممهر والأوطان فر لغير جهات اللعين غيرنا المعين عد يتيم من الإله والنبي كليتي صفت وصفت تنبي توفيه هاد قاده الإرهام خد الديال ما لهم بعام بدت لي اليوم برب العيب أهزني ممن حل وحيب لا يتوجه لنحو المضرب غني مخد مكاره والتعب سعادتي بغير ما إن كتبت وكوني الخبد الحديم الخد ثبت شكر لي ميسر العسير مطرول يا بلا مسير lépp lu حشده yàlla fekk sunu waji Ousmane ndjay ci bir bàmmeelam bi barakati Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. ah Pape Si Ndiaye mii. sama rakk ko jur. rakkam moo jur. yaayam. yaayam. moo ko def mourid moo def murit. mu may ko sama jarbaat. mu may ko jarbaatam. mu am ci papa Si Ndiaye mii. mu ŋàbb ko ci loxo. mu ŋàbb ko ci loxo. yóbbu ko ci serigne Abdou Karim. yóbbu ko ci serigne Abdou Karim. booba limu mën bari booba li mu mën bariwul. dinaa def jànkatu xasida mu ne ko dina ko def jànkatu xasida bu mag. loolu la wax papis. loolu la wax papis. te dinaa la te dina ko yóbbu ci sëriñ ba. mu ñaanal la mu ñaanal la. mu dugal ko ci oto. mu dugal ko ci oto. ak ay footballeur yu war a dem bitim réew. ak ay yu war a dem bitim réew. te mënuñoo dem. te mënuñoo dem. mu ma mu indi leen. mu ne ko jàngal. mu ne ko jàngal. mu jàng sëriñ bi déglu ko. mu jàng sëriñ bi déglu ko. ne ko sama rakk ko rakkam bu jigéen. moo ko jur. mu bëgg ñëpp dégg ko. mu bëgg ñëpp dégg ko. mu ne ma li nga bëgg mooy am ñëpp daan ko dégg. mu ne ko li ma bëgg mooy am ñëpp dinañ ko dégg. ma ne ko dama bëgg lu yëkkati ko teg ko mu ne dafa bëgg ñu yëkkati ko teg ko ci kaw jànkat yi. sëriñ bi ñaanalal ma ko. sëriñ bi ñaanalal ko ko. noonu laa def xaasimu mii. noonu la def xaasimu mii. dama ni ko woon yow. daf ko ni woon yow. gaa yi. yi. li ñuy xëcc yow. li ñuy xëcc ci yow. xaasim pël fuuta laa. xaasim laa. xaasim lee la. xaasim jullit la. xaasim la. murit la murit la. Baye Fall la taalibe Sëriñ Fallu la taalibe Sëriñ Fallu la. di doomi murit mbay di doomi murit mbay. damaa xam ne bu ma ko seetaanee. daa xam ne bu ko seetaanee. ba ma ma dee suba la wala déwén yàlla moo xam. xamul dee suba la wala feneen yàlla moo xam. te bu ma bu ma fi jóge woon. te bu fi jóge woon yàlla na yéex. sama njaboot dañuy jël sama alal. njabootam dañuy jël alalam. bàyyi ko bàyyi ko. te moo ko jur. moo ko jur. moo tax may moo tax mu may ko kër tey. yaay góor de. pour bëgguma sama dara. nee na bëggul dara ma samay doom. mu lekk ko ay doomam. bàyyi ko dama bëgg ko. dafa bëgg xam ko. kër gi tàmbali la. kër gi tàmbali la. dana tegu ci kaw jàngkat yi. dana tegu ci kaw jàngkat yi. waxoon na ko. waxoon na ko ko. xam naa sax. xam naa sax mbiru xale. mais le temps nous jugera àddinaa ngi suñu kanam. le temps nous jugera àddinaa ngi ci suñu kanam. nañ dox dem. nañ dox dem. bu ñu demee ci tuuti. bu ñu demee tuuti. moom dana xam ni. moom dana xam ni. li ma koy wax. lim li nga koy wax. bu ñëwee. bu ñëwee. dina ci mën yor ndeyam ak baayam. dina ci mën yor ndeyam ak baayam. yor ci njabootam. yor ci njabootam. te dara du ko déranger. te dara du ko déranger. loolu mu ngi ci sunu kanam. fu ma dëkk. te fu mu dëkk. dana fa dëkk dana fa dëkk. fu mu am kër. fu dina fa am kër ak man. waaw waaw. Eh, dama am fu la ba dee. lii mu wax. xam naa sax ni. xam naa sax ni. dañuy defe moo tax. dañuy foog ni yii moo tax. bu lii amul woon bu lii amul woon it. barki Serigne Touba. barki Serigne Touba. li ma war ci moom. li mu war ci moom. xam naa ko xam na ko. gàndooy xam na xam na ko. jaam xam na ko jaam xam na ko. paquetage mi. paquetage mi. ak Karim xam na li ma war ci xam neen li ko war ci xale yi. kon yàlla ñu yàlla suturaal. kon yàlla ñu yàlla suturaal amin. ba xale yii. ba xale yii. ànd gi nu ànd ak man. ànd gi nu ànd ak yow. ngir jëmmi sëñ Touba. ngir jëmmi sëñ Touba. yàlla defal ma. yàlla defal la. fu nu jëm fu nu jëm. ñu àgg fa amin. li ñuy yóotu ñu jot ko. li nu ragal li nu ragal. ñu bañ koo gis. man nag Seydina Ousmane daf maa waxoon ne. moom nag Seydina Ousmane logo noor suma noor lu neex man mu bàyyi ma. da ko waxoon. loo bëgg. lu mu bëgg. wuti ko wuti ko. boo demee am ko. sëñ Abdou Karim sëñ Abdou Karim ni ma ni ko mbër mbër lu mu rëy rëy lu mu rëy rëy yow ndëkk rek la ci war yow ndëkk rek la ci war bu sëgg jotee bu sëgg jotee man Abdou Karim maay sëgg maay sëgg man Abdou Karim te ku roofool te ku mu roofool sëñ Fallou ku mu roofool bu la jàppee nga xam ne doo dara waaw waaw kon man kon yow mënuma fay xale yi munoo fay xale yi munoo fay bi munoo fay waa koñ bi munuma fay ñëw munoo fay ñi ñëw ñii bala ay sa bur suñ mbàkk maaram yéen nag yéen sama sang ngeen ay sangam ngeen mu ne ndax man xajub sëñ Touba la ndax moom xajub sëñ Touba la sëriñ Touba nag sëriñ Touba nag digalu ko màtte waaye terewu ko xiiru Mbàkke mu ne dëx dégg nga li mu wax Touba sëriñ Touba digalu ko màtte waaye terewu ko xiiru xam te moom ragalul boo déggee mu ne ragalul ñi bëgg a dox digganteem ak sëñ Touba tax wala digganteem ak njabootu sëñ Touba wala digganteem ak taalibi sëñ Touba yi ñooñu nag ñooñu nag attaqué nañ ma guerre attaqué nañ ko guerre man moom guerram fexe ba di ko defal lu baax loo ko defal ci lu bon baal na la yàlla mi séddale yow ki koy def lu bon yàlla na la njëkk a sédd mu li des mu jox ko moom daal mu ngi sëñ Tuuba kum naqari booy añ bu ko woo suur na bu fekkee sax dépense am mat na waaye yéen gërëm na leen ndax li ngeen def ci bi. dafa am ay influence étrangère. dafa am ay influence étrangère. ak de mémoire. ak de détruire mémoire jeunesse bi. yuy détruire mémoire de jeunesse bi. di leen ci loo xam ni. di ci loo xam ni. ngërëmal yàlla. ak bu bu taral koy def. taral la koy def. ko ci yi biir Bir Medina. Collé Dara moo fi amoon Collé Dara moo fi amoon xumbal xumbal podium rappeur podium rappeur agression agression sangara sangara voleur dealer jaaykat yi à part ça à part ça footballeur yi footballeur yi vedette yi fi lañ newoon vedette yi fi lañ newoon mbër yi vedette yi fi la newoon waykat yi vedette yi fi la newoon fecckat yi tëggkat sabar yi lépp fii sëñ Ousmane yebal la fii nga ñëw bande yi xeex ak yow Fatou Diop jaagale la ñibbi nga dem ci sëñ Ousmane wax ko ko mu am lu mu la jox ne la dellu Ndakaaru liggéeyal li sëñ Touba seetal fu la neex nga gas ko suul ko fa boo wootee Ndakaaru gépp wuy Nooréni Nooréni sëñ Ousmane. man man man. Baye Mouride mu ne moom moom moom. bi ma ko defee. bi mu ko defee. defe naa ni léegi. defe naa ni léegi. fu ñu doon tànn béere. fu ñu doon tànn béere. wala ñu fay fuural. wala ñu fay fuural. fi ñu toll nii. cant rek. cant rek te bi mu ko daan def fii. mag ñi. mag ñi. dañ ma daan yóbbu quatrième. dañ ko doon yóbbu quatrième. di ko fa téye ay ñaari fan. di ko fa téye ñaari fan. ay ñetti fan du lekk. sonal ko lu mu def baas ñu daane sëriñ Ousmane yónni sëñ Moise bu waree bâche day taxaw mu sonn lool yow wéet lool rafle lool ñàkk lool yor këllam di wër di màjjal di dem Daaru Musti kenn ma ko ci fekk benn soxna bu ñuy wax cuuna wax cuuna soxnay alaaji Mbàkke Jóob soxnay alaaji Mbàkke Jóob moo ma may soxna moo ko may soxna uf samay doom ay doomam ca booba ca booba awma dépense amul dépense yor yor samay njaboot yor ay njabootam di ko jox añ di ko jox reer ànd ak moom ba tey mu mën boppam ku ko jàppale woon ci jamono jooju ku ko jàppale ci jamono jooju ñu ñëwul fii ne man duñ fi ñëw duñ fi ñëw amul sonnoon na sonnoon nga tey ji koñ boo jàdd tey ji koñ boo jàdd la ma sëriñ Ousmane waxoon la la sëriñ Ousmane waxoon teg nga ci sa bët fu ma jàdd rek foo jàdd rek cant yaa nga fa Baay Faal yaa nga fa yaay faal yi daayira yi dara yàquwul dara yàquwul waaye léegi nag waaye léegi nag ñu ne xale yi duñ doon murit ñu ne xale yi duñ doon murit xale yi duñ doon Baay Faal xale yi doon Baay Faal te ñi koy wax te ñi koy wax da leen di tuuti da leen di wax tuuti waaw waaw. ñi koy wax. ñi koy wax. lu ñu wax xale yi. lu ñu wax xale yi. bu ñu duggee seen néegu ndey. bu ñu duggee seen néegu mbaa seen néegu baay. mbaa seen néegu baay. ko fa gis. kenn ku ne. kenn ku ne. na nga dellu sa néegu ndey. na nga dellu sa néegu ndey. ak sa néegu baay. ak sa néegu baay. nga jéem ko réglé. ko réglé. sa bàyyi doomu sa bàyyi te bàyyi doomu jàmbur yi. lu waay am lu muy wax lu waay am lu muy wax. na dugg biir ay do ay ñi fi ne. ñi fi ne. ñenn ñi seen doom. ñenn ñi seen doom. sàcc la. sàcc la ñu ma. ñi dañuy jaay bon. bon yàlla. ñenn ñi dañuy drogué wu. ñenn ñi di fóon drogué ñenn ñi dañuy am seen kër. ñenn ñi di am seen kër. teg seen salon. teg seen salon. seen doom yi jigéen indi fa far ba seen doom yi jigéen indi fa seen sàmba sugum ngay ba fajar. bu ñu demee. bu ñu demee. ñu jox ko jigéen ki xaalis. ñu jox ko jigéen ki xaalis. jox ko seen yaay. ñu jox ko seen yaay. ñu togg ko. ñu togg ko. xale bi du liggéey. xale bi du liggéey. du gor du yett yooyu nañ ci wax yooyu nañ ci wax nañ wax ci sabar yi. nañ wax ci sabar yi. nañ wax ci mbër yi. ah nañ wax ci agression nañ wax ci yi. waaye les tueurs nag. les tueurs nag. raykat yi raykat yi. waxuñu yooyu yëpp waxuñu yooyu yëpp. fekk doomu suñ tubaay yi ak taalibi suñ tubaay ak baay faal di am lu leen wax nañ seetaat seen bopp baay murid nee na du ko nangu de nit day maandu nit day maandu jaamu yàlla sax yàlla sax boo maanduwul yàlla du ko nangu Baye Fall du nu woor. Baye Fall du nu woor. Baye Fall yi du nu julli. lu nekk lay dégg. xam nga julli. waaw nee na xam nga julli. yàlla amu ci soxla. yàlla amu ci soxla. waaw xam-xam teewlu leen. xam nga lu yàlla am soxla. lu yàlla am soxla. bi nga jógee di julli ji. bi nga jógee di julli ji. fan nga jógee dem julli ji. fan nga jógee dem julli ji. ak boo julee ba pare. fan nga jëm. julli ku mënta defar. julli ku mënta defar. doo dara jarul nga koy def jarul nga koy def. da ngay jóge ci jabalu jàmbur. da ngay jóge ci jabalu jàmbur. ba pare julli ji. ba pare julli ji. wala da ngay julli ba pare. wala da ngay julli ba pare. doxaani doxaani. wala da ngay julli ba pare. wala da ngay julli ba pare. tux yamba wala dem baar ba. wala sàcc wala fen wala fenn fenn. wala da ngay sàcc wala da ngay sàcc yenu ko yenu ko jàkka ji ne allahu akbar jàkka ji ne allahu akbar nga yeneel ko li nga sàcc ne da ngaa julli yenu waat la nga sàcc bëgg a dem sàcc kat mun tan am mun tan ne safara safara yàllaa ko moom yàllaa ko moom. du toolu bàyyu kenn. du toolu bàyyu kenn. ba ku nekk nga bëgg fa dagal néeg. ba ku nekk nga bëgg ko fa dagal néeg. tijaan yi. yi. nañ dem àjjana. nañ dem àjjana. xaadir yi nañ dem àjjana. murid yi nañ dem àjjana. ñi gëmul dara sax ñi gëmul dara. àjjana yaatu na àjjana yaatu yàlla yóbbu fa ñëpp. yàlla yóbbu fa ñëpp waay. ñun daal duñ dem àjjana pour lan.

Adama Sène Adama Sène sama xarita xaritama ci jàmbaari Serigne Abdou Karim la ci jàmbaari Serigne Abdou Karim la bokk ci gaynde yi ci gaynde yi Xaasimu da ko yëgaloon bis bi Xaasimu da bis bi dafa am contre temps am contre moo tax ñëwul moo tax ñëwul mu yebal jëwrinam ji mu yebal jëwrin ji mu teew fi mu teew fi Adama Sène nag Adama seen nag sama rakka rakkam la ñoo bokk kër sëriñ bi ñoo bi muy gaynde muy gaynde gis nga man gis nga yow Baye Mouride jëwrin ju ma jëwriñ joo xam ne man téye naa ko jëwriñ joo xamante ni bàyyi murit ngëpp na la téye la la fonk la fonk la xamal ni jëfkat nga kër sëñ Touba xamal ni jëfkat nga kër sëriñ Touba bis boo yox yoxee. bis boo yox yoxee. mu wóor ma ni. mu wóor ko ni. demi mesure ngay doxee ngay doxee. da lay seeti fugaraas yi feneen ku nekk ci ndigal li. seeti fugaraas yi fugaraas yi. seeti fugaraas jàpp leen. jàpp leen. am ci ñoom tegtal. am ci ñoom tegtal. ku ma jëmee ci Serigne Touba. ku mu jëmee ci Serigne Touba. moo fi yebal kii moo fi yebal kii. kontaan naa nag. kontaan nga nag. gërëm nga. sant naa sant nga. mbàkke mbàkke yi balay sa buri kontaan na xaasimu doomam la papaam a ngi ne yaayam a ngi nii ñoo ko ko may ngir sëñ Touba ma may la sama bopp ngir sëñ Touba nangu na Baye Fallam yii nag Baye Fallam yii mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen gërëm di leen gërëm ndax boo ñëwee Medina. ndax boo ñëwee Medina. fekk ma ma toog fii. fekk ko mu toog. doo comprendre. doo comprendre. doo xam doo xam. ndax buntu kër gi. ndax buntu kër gi. ak siis bi ak siis bi. waaye fi mu yi di daje. waaye fi murid yi di daje. ku ma fa ku ko fa fekk. Vous comprenez? comprendre comprenez? Vous comprenez? yi comprenez? ko fa Vous comprendre Vous Europe Afrique dox ba comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? xam comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? fii ci Medina ne Ibrahima Fall. yal na yàlla defar lépp. yal na yàlla defar lépp. nee na nee na bëgg na Baye Fall yëpp encore. yal na yàlla defar ñëpp. tey jii nag. ñi fi nekk. ñi fi nekk. ku ñibbi. ku da am dara. da am dégg ngeen Baye Mouride nee na ñi fi nekk tey ku ñibbi ku ñibbi di nga am dara boo amul dara boo amul dara boo gisee xaj boo gisee xaj tuddee ma ko tuddee ma ko man Ousmane Seck ku dem boo gisul dara tuddee ma xaj bi man Baye Mouride ku yëy yaxu bukki waaw doo yëyee yaxu bukki jëlal sa loxo nga teg ko ci kaamil neel waaw yëy naa yaxu yëykatu yax waaw waaw Baay Murit doo nekkee ndakaaru sonn uh-huh. duma la ci yërëm mm-hmm. ndax ñii toog seen maam mm-hmm. moo leen bindaloon ni sibti ka sibti mm-hmm. moom lañu waxoon Ousmane waaw doo xalamee ñaari guddi yi ndakaaru mm-hmm. ba dégg wax ja seex bamba wax nga waaru mm-hmm. isaa sàkkartu saalikal mabita wa saalikal lamira wa sabuuta tarab ilaa jihaadi bi narmaa yi nafsi walakin sabba anil maa yi doo nekkee ndakaaru am fii noon danga donnu Serigne Touba dëgg la bay murit yow day dangaa am kër ci àdduna di ko maye mm-hmm. waaye jëfal nga Serigne Touba lu tax mu may la kër fa àjjana xaasim waaw dan ni du lëkk maccee aloom na ko gërëme coy mhm. loo am gërëme ko Serigne Touba Baye Mouride coow li coow li bu ñu gërëmi ki nga xamante ni moo wut woon matt yi ba pare bañ a gërëm ki xamb taal bi waaw xaasim ba sa way jur wu jigéen wi tolloog diggante am juróom-ñeenti weer xamoo Serigne Touba dëgg la xaasim bi nga juddoo di namp xamoo Serigne Touba. dëgg la bi nga ferem soow xamoo Serigne Touba. dëgg la bi nga demee di dox ay tànkam xamoo Serigne Touba loo am ak noo mel ak foo ko amee noo ko melee ku la ko def sa ñaanug wajur la nii la sama ndey mel. waaw maa ngi jégalu. Bangour da wax da nga ma may kër. man ba ma juddoo ba tey. sama papa day fay fay luwaas ba léegi.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 mais ni ma Dakar instant fay prouver ne ko Dakar instant ci kanam la jëm inshallah ga ñu Dakar instant lan leen lay wax na gaay dem abonné loolu actualité Dakar instant. c'est ligue rafet trop wax ci Dakar instant. Dakar instant nag xew ndax bañ chaque jour ma information yi may soxla YouTube bi ko rek. instant.